am na benn piège boo xamante ni seytaane des fois ci lay jaare euh, ba yàqal ñu bari da gis koo xam ne day julli day woor macha allah day jàng sax amaan alxuraan waaye seytaane xool na bunt yu bari pour mën ko am ba mu perte fii nar a perte aussi mu jaarale ko ci benn bunt bunt boobu mooy ban mooy buntu mer mer am ñoo xamante ni buñ meree daanaka dañuy tàggook seen xel seen sago te xool leen mer mooy fu mu yóbbu ñu bari ci ñun yàq na ay sëy yu bari subhanallah te boo xoolee ba xool jaru ko woon boo jëlee recul tuuti gis ni rek te lii mënoon naa ko muñ te yàlla rek a tax yàlla kontaan ci man amaana sax yàlla yërëm ma ci dugal ma ci aljanna ñu bari bu ñu meree subhanallah ci lañ jaar yàq seeni sëy subhanallah mer yóbbee na ay nit ci bàkkaar yoo xamante ni min kabairi dunu bàkkaar yu gën mag ci bàkkaar yi xam na mën mënu la yóbbu ci bàkkaar yooyu mais da jaaral ci bunt bi mais pour atteindre bunt yële mooy nga gis koo xam ne seytaane mënul fexe ba yóbbu la ba nga rey nit mais dalay jaaral ci buntu mer tey ñaata ñoo mer rey say rey ay nit ñenn ñi sax rey seeni xarit ñenn ñi mer xool leen chauffeur yi ci tali bi loo xamante ni mooy sa ego sa bakkan nga topp ci mer benn seconde rek nga accident ci yàq ci sa oto subhanallah ñenn ñi gaañu si ñenn ñi yàqal ci ñeneen yàqal ci yàq ci mu yóbbu la ci lu doy waar ñenn ñi seen bakkan sax ñu ñàkk ko ci mer bunt la boo xamante ni tëj ko nit moom mënoo wax ni nit du mer waaye fexeel ba soo meree nga fexe ba léegi nga nekk bokk ci xaritu yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na euh, dëgg-dëgg nit koo xamante ni ku am doole la ca yàlla te yàlla bëgg ko l'homme fort wala wax ku jigéen koo xamante ni yàlla daf ko bëgg mooy koo xam ne bu meree day maîtriser wu day téye boppam xalaat avant muy wax day xalaat du wax n'importe quoi subhanallah des fois nga jékki-jékki dem sax même bu dee dañ naan sax sa dignité da ngay jihaadu nafs ak sa dignité ak sa fierté ak sa personnalité mais nga xalaat lan lay jur yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na laysa shadidu bi sura innama shadidu man yamliku nafsu inda al-ghadab te xool leen mer yóbbi na ay nit subhanallah ba ñu rey ay nit yóbbi na ay nit ñaar ñoo xam ne wala ay nit ñoo xam ne xamante nañ nekk ay xarit pendant plus de vingt ans mer ñëw bay ndeysaan quelques secondes yàq loolu mer yóbbi na ay nit ba ñu dugg ci soxor dugg ci keñaan dem ba ay yàqal ay nit dem ba ay liggéey ay nit ndax mer bunt la boo xam ne tëj ko boo bëggee yàlla may la aljanna kon ki gën ci ñun mooy koo xam ne bu action ñëwee day tee boppam réfléchir naam ndax bëgg ba léegi bokk ci xaritu yàlla yooyu di dem aljanna mooy day tee làmmiñam du saaga du xasaate du manqué de respect waaye du ñàkk fayda aussi nekkul si tàppet waaye da nga xam ni xéewal bi nga bëgg muy aljanna mer bi moo la ko nar a xañ mbégte bu yàlla war a bég ci yow xam mer bi moo la ko nar a xañ ñàkk a gis yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yawmal qiyaama mer moo la ko nar a xañ kon bul mer nga xalaat mooy que ni xéewal yi ca biir bàmmeel xéewal yi yowmal xiyaama kon nañ ci bàyyi xel kon saa yoo demee ba mer teel sa bopp nga maîtriser wu ndax am ñoo xam ne mer tax nañu wax wax joo xam ne génne na la ci lislaam tax na yàlla mere leen ba faw yàlla nañ ci yàlla musal allahuma amin ya rabbal alamin